droit de l'homme li ñu wax ku ci mel ni Alioune Tine mi ngi naan nañu libérer Bougane parce que dafa war a dem baax campagne ndax candidat la. <laughs> Alioune moo wax loolu. Alioune Tine waaw. Ah, baax na buñ ko àttee ba pare libéré ko bu yaayee libéré ñu libéré ko ban juge dégg naa ci turu maa jàll boo nekk foofu. moom moo ko war a saytu. ah foofu koy ndig buukaan am na sens comme maa xam jàll moo koy moo koy àtte je hmm? hmm. ne pense comme euh, euh, Diomaye ak Ousmane Sonko mën nañu wax dara maa xam jàll pour mu def ko ah <laughs> dëgg man de man daal xam nga lu may bañ hmm. mooy ñuy jaxase mbir moom alkaati la joteel alkaati lu nu mu te gendarme yi service de sécurité bi gis na ni jalkati na seen yoon wax nañ ko mu bañ ñu waxaat ko mu bañ parce que alka nit ñi dañu xamul nii am de tenue en service. Mm-hmm. bu la tooñee yaa ko tooñ boo ko tooñee mooy yaa ko munoo am dëgg ci moom fii ak mi ngi tënee. Mm-hmm. jàmm ji kañ moom lii jàmm ji mooy nga xam ni moom mi ngi lay tooñ. nga mm-hmm. àndax dal. daal ci suuf daal di dem ut sa avocat. loolu rek nga mën a def pour am jàmm. mais moom mën na laa tooñ ba pare wëlbatiku jàpp la def la garde à vue bu dee vendredi mu téye la ba lundi yóbbu la tribunal. mais loolu bu waa nekkatuñ ci état de droit de bu mënee hmm. demee noonu. bu mënee demee noonu nekkuñ ci état de droit. parce que xam lan mooy wax ji. Hmm. lan mooy wax ji. Hmm. kañ la ñuy xam ni moom moo la tooñ. ah si man man man man man gis naa seen bu bari mu am mais après dañuy xam ne homme de tenue bi moo tooñ. waaw baax na de façon mooy. xam nga tey jii am na fi sunu benn mbokk taalibe bu fi jóge woon Europe ñëw fi màggal si. Mhm. ci problème de contrôle de de carte grise la mhm. bàyyi woon ginnaaw xaw ma. Mhm, tu vois. Cheikh Niass Cheikh Niass xoolal si kaakaawu Cheikh Niass boobu. tu vois. saa boobu da boo ko xoolee ba xool da ngay xam ne lii jarul woon sax jàpp. déedéet loolu nag mooy indi euh, coow li euh, léegi parce que loolu. Euh, même bu fekkee ne mi ngi am nekkul lu normal. man dama lay jox beneen affaire. tey jii tey tey jii alkaati yi contrôlé la nga def infraction ci tali man damaa gis ni normal nga def infraction ci tali bi mu contrôlé la jël sa permi jël sa permi ne la après nga dem jëli ko loolu lu la pour man. Mhm. parce que alkaati yi sécurité de sécurité war nañ fexe benn mode boo xamante ni boo defee infraction bu fekkee ni fële boo fa demee da ngay fay. ñu joxaat la sa permis war nañ mën a créer système boo xam ci saa si ngay fay continuer sa voyage. am na léegi moo xew léegi. ci saa si léegi dafay nekk ak tiw électronique am na léegi mais dajagul fépp. <laughs> dajagul fépp kon yàlla gaaw daj fépp. <laughs> pour te dire rek quoi. comprendre nga mm-hmm. mais li nga xamante ni li nga xamante ni euh, euh, euh, moom loo xew ñëpp gis ko. Mm-hmm. man de damay jàpp ci teggin jiitu réew mi bu nekkee ci benn gox di def liggéey pareegul. di def liggéey pareegul zone boobu dañ ko war a sécuriser ba mu def ba mu def liggéeyam ba pare bu defee liggéeyam ba pare bu defee liggéeyam ba pare nag bu ko defee après yow booy topp tànk nga dem topp tànk bu fekkee yow da ngaa bëgg dem ngir taxawu waa dëkk boobu jàppale leen ci liñ nekk xoolaale faay yi nga xamante ne état def na ko. nga dénoncé ko. su boobaa tu le temps bis bu fa président jógee yow nga dem topp tànk comme ni ñu ko doon comme ni mu ko daan defee jamonoy Macky Sall. mais instant suñ toll nii président nekk fa di def liggéeyam yow nga ñëw bëgg fa dugg en même temps di def say propagande politique c' est pas du respect c' est mhm. te loi nag te loi daan la xamal benn affaire. loi xam nga lan moo ko tax a jóg. Mhm. pour l'ordre mhm. loi pour l'ordre moo ko tax a jóg. bu fekkee ni sax dafa am ay loi bu la mayee lenn loo xamante ni dafay créer désordre su boobaa gars yi dañuy dañuy dañuy teg fee loi bi créer ordre mooy lii xew ci circulation rek circulation léegi-léegi ñu teg fële feu rouge alkaati bi commencé <laughs> yor remplacer feu rouge bi tu vois donc il faut que ñu dem le bon sens nag duñ jël lépp teg ko ci texte bàyyi le bon sens quand mmh, mmh. mais bu fekkee ne euh, Saa Wolof am na ci loo bëggoon ñëw mmh. Euh, même bu fekkee ne yéen comme ni ma ko waxee droit de l'homme fii parce que euh, Seydi Gassama li mu wax aussi c'est euh, très important nee na cet incident mineur qui n'a pas mis en danger la vie des personnes doit être placé dans le contexte préélectoral actuel peut-être c'est que yooyu gis nga eh, man ki nga xamante ne nii moo di Bougane Gueye Dany eh, am na noo xam ne benn comportement boo xam ne def na ko kenn rafetluwu ko eh, force de l'ordre yi mun nañ ko téye taxawal ko mais kantaan nag dem ba di ko ci garde à vue ak yooyu peut-être loolu moom moo nekk problème bi. waaw peut-être que xam nga ñoom li ñuy xool rek mooy li superficiel ci kaw man dama yaakaar ne suñu. Euh, droit de l'homiste yi tamit quand war nañu mise à jour seen bopp parce que yi ñuy far nii gis nga nit ki bu tooñee nga wan ko ne ko da ngaa juum waaye ñi ngi na ñaan nangam ak nangam parce que comme politique def nii nangam dañ ko mën a taxaw mais li day mel ni yaa ngi koy jañ ci ne ko yaa nekk ci dëgg te gis nga penc mi li tax muy am problème saa su nekk mooy du ñu wax kii wax mu wax dëgg dama am benn kii boo xam ne président Diomaye daf ko wax bu yàggut mm-hmm. ay at ci ginnaaw moom ñu ànd te point bi parce que c'est extrêmement important ci qualité humaine par exemple bari na lu ñu am ak moom accrochage te pourtant bu muy def tibbi tànkam ba mooy bi président Macky Sall demee ànd ak sa ordinaire villa au Fouta ñuy bastonné di def tournée économique. Eh, eh, léegi loolu <laughs> tamit loolu loolu du tournée économique. Mm. Bougane bi président gisee loolu def ko wone ko Bougane dégg naa ne yow yaa ngi dans la zone nord fan nga nekk mu ne ko maa ngi Wuro Sogi mu ne ko ana président Macky Sall mu ne ko dañoo génn mais fii lañ nar a fanaan mu ne ko génnal. loolu du ngeen ko moom. ma ne loolu du ngeen ko Bougane. oui parce que en fait. mu ngi xalaat ne am na lenn lu ko fu mën a fekk. lu ko ci mën a fekk lu mu ko yéenewul. ñoo xam amoon nañ. xam nga fii Ousmane Sonko la président Diomaye di wax parce que boobu dafa nekkoon invité sa émission invité d'honneur mhm. mu nekkoon seen invité. Mhm. Euh, ñu ko doon wax muy wax que ne qualité humanitaire bu Sonko ni muy xalaatee. ci ku mhm. nekk ci république xam nga tey. dama koy faral di wax xam nga Sonko ak wàdd dafa am benn côté boo xam ne dañ ko niroole muy dañu weex donc mais booy xool ñi gën a républicain mhm. wadd daanaka doo ko lim di lim homme d'état yi da ngay jàpp ne gars yi ñoo ko gën a kii dafa xeet yi dafa ma nag waa parti socialiste ngay waxal pourtant mhm. même bu ñu la wax ci ak côté violence waa parti socialiste ñoo installé woon seen ay tonton Makko jàpp waa PDS di leen rukk bi ñu demee ba sonn ci lañ doog a Euh, indi li ñuy wax euh, canon bu la def gatsa gatsa. parce que du ma la seetaan nga may rey. tey bu ma la waxoon ñi doon diriger tonton Makuri yi ci parti socialiste. am na koo xam ne kilifa la tey ci benn communauté bu bu bu am doole tey bokk na ci ñooñu. moo tax du ma ko tudd pour par raison ñi mu jiite tey ci communauté boobu. mais xam nañ ko am na ci keneen koo xam ne benn leader politique boo xam ne tey instant presque. Euh, suqam mi ngi ko bëgg a yóbbu à euh, retraite ci ñi ko doon defee te ñooñu boo leen gisee da jàpp ñoo gën a teey ñoo gën a baax ñoo doon def loolu ba loolu am Sonko malgré li ñu koy def Sonko Macky Sall da doon jaar nii mu jaar nee bu defee déclaration da def déclaration bu gisee def mais bokkuñ sax fu ñuy dem fii président euh, euh, li président Diomaye di wax tey daf ne Bougane comme ku nekk ci opposition bi Macky dem Fuuta bëggoon a def yëfu comme tibb tànk mu ne Sonko daf ko woo ne ko foo